rejet de l'économie ak ay dossiers yoo xam ne yitteel na askan wi yéenekaay gi di réew mi quotidien di bàyyi xel ñi nga xam ne ñooy ay lecteur am ak ay internet am yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi point com bi nee na li nga xam ne nag mooy taxawaayu taskatu xabaar yi mooy jox askan wi ay xibaar yoo xam ne yu wér te wóor lay doon te loolee moo war a nekk liggéeyu taskatu xabaar yéenekaay gi di Vox Populi ak laas xëy ñu yóbbu ñu assemblée nationale Mamadou Lamine Diallo moom tim daat la ñu koy xool amee na coronavirus journal bii di Les Échos nee na assemblée nationale ma ngi jax-jaxi ndax ñi nga xam ne ñooy député yi tiit nañ ba maara détail yi jamono ji sax li nga xam ne moo des ci lu jëm ci wàllum vote ak budget gi wii kulu lay doon source a ñu xëy fekk fa Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké député bi nee na yëg na ci ay xibaar ne lu toll si ñaar fukk ci ay député feebar nañu ba tëdd ci lali hôpitaux yi yéene kaay gi xëy sampablaaca ne député yi nga xam ne ñoo nekk assemblée nationale na ko fa amee coronavirus ba faatu ndax danañu leen test test yéen kaay gi de bàyyi mbir moomee wax ci clinique day bi nga xam ne doon nañu ko ŋawta ŋawtee ci réewum Sénégal wax ne Sénégal dañoo bëgg mu set comme ni nga xam ne moom la Rwanda sete Dakar set comme ni Kigali sete journal bi ne na Macky Sall sax demoon na bay roy ci ki nga xam ne mooy Paul Kagame waaye nag mbooleem loo xamante ni Macky Sall sumboon na ko ci clinique day ngir Sénégal set wecci tegaat nañ ko ci suufa état bu Sénégal biñ leen laajee na leen clinique day bi nga xam ne commencé woon ngeen ko lan moo tax ngeen ko ci suuf la ñu tontu mooy dañuy changé aw doxalin yéenekaay gii di Direct News xëy di ñu xamal lan ñu ñi nga xam ne ñooy nappkat yi pêcheurs yi mer nañu ba maara day taali ndax jamono ji ñoom nee nañu sonn nañu ci Aliou Ndoye mi nga xam ne moom lañ dénk wàllum napp gi ndax dañoo jàpp ne ab liggéeyam demul cee nga dikkul mbay laara la nga xam ne moo gën a naqari nag ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci lu jëm ci wàllum pêche maanaam accord de pêche yi nga xam ne réewum Sénégal sife na ko ak waa Union européenne ñoom ñu jàpp ne baaxul ci réew mi yéenekaay gii réew mi quotidien ak le témoin mu ñu xamal lan ñu étudiants yi nga xam ne ñu nekk université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru démb mer nañu ba mara détaillé ndax dañoo toog ñaari weer yoo xam ne fayu ñu leen seeni bourse loolee moo tax démb jàppante nañu ba mu saf sàpp ak ñi nga xam ne ñooy tekk der yi yéenekaay gi de la Soleil nee na yi danañu leen fay seeni bourse altine bi nga xam ne moom la ñu dëgmal Sud Quotidien nee na moom li mu gis mooy ajjuma bi ñu dëgmal la ñu wax étudiants yi yéenekaay gi de la Soleil ak Le Quotidien ak La Tribune mu ñu xamal la ñu njiitu réew di président Macky Sall ci lu jëm ci njënd ak njaayum gerte gi nga xam ne chinois yi sonal na lool Sonacos tax na Macky Sall freiner chinois yi ndax dafa yokk li nga xam ne mooy taxe yi nga xam ne jëm na ci gerte gi ñuy génnee ci réew mi di ko yóbbu bitim réew yéen kaay gi di réew mi ko quotidien Vox Populi L'As Source A Dakar Times Les Échos nee na rapport bi nga xamante ni waa ARMP génn nañu ko doy na waar génn xeetu doy war goo xam ne fu ko waay natt passé na ko néewaa na ci réew mi fooy laal wala fooy lëmbët wala fooy xool foo xam ne ñu fa ay tojange ci lu jëm ci alalu askan wi yéen kaay gi nee na bëri na lu ca lëndëm bëri na ay njublaanga journal bi nee na ñi nga xam ne ñooy waa bi xam ne génn nañu ko gis nañ ne muy poste muy Ageroute muy APEX muy ministère environnement ñii ñëpp gis nañu ne def nañu ay tojange yéen kaay gi ne nag yokk ci ministère de l'intérieur yokk ci ministère bi ñu dénk wàllum ndox mi yéen kaay gi du l'observateur nee na rapport bi nga xam ne ARMP génn na ko 2018 2019 maanaam ndëngate ak tojange ak léexóor yi nga xamante ni am na sa ni ay wuru doy na waara yéen kaay gi nee na bëri na ay marché yoo xamante ni ay tappale ma nga ca lu ci mel ni port bu Ndakaaru ministère la jeunesse nga dem jàll ba yéen kay gi di Walf Fadjri nee na jëfin wu ñaaw wekk doxalin wu ñaaw wekk pasar pasare alalu askan wi ba léegi ma ngi am ci réew mi yéen kay gi nee na xam ne ay jamono bi ñu dénk wàllum ndaw ñi yéen kay di Sud nee na lu jëm ci rapport boobee gis nañ ne ay ndëngate ak i léexuur ak i wuruc am na si SNHLM yéen kay gi di Les Échos nee na yorin wu bon wi ba léegi ma ngi ci réew mi waa ASBEF gis nañ fa ay njublang ay fraude yoo xam ne toll na ci sept milliards yéen kay gi di Quotidien mu ñu xamal lañu nag ñàkk a génn rapport bi nga xam ne jëm na ci wàllum blanchiment d'argent loolee ana lan moo ko waral ak waa CENTIF ñoom ana lan la ñuy nëbb yéen a gi di réew mi Quotidien xëy séq waxtaan wu yaatu ak Abdoulaye Bibi Baldé mi nga xam ne mooy directeur général bu postu wax na jafe-jafe yi nga xam ne poste am na ko ci coronavirus bi nee na soo muy tuulee lu jàpp ñeent jàpp juróom benn ci ay milliards poste dina ko ñàkk nee na poste lu toll si juróom benn ci ba léegi defuñu état des lieux taskatu xabaar bi laaj ko na ko Abdoulaye Bibi Baldé ndax pare ngir ngir audité poste nee na audit poste lu baax la te ñoom dàq ñu ko yéen a kaay gi di sunu làmb xëy samp ab laajte ne Modou ak Eumeu kan moo gën a xarañ journal bi nee na Modou am na ñaar fukk ko ci ay victoire Eumeu Sène fukk ci ay victoire Modou Lo am na ñett ci ay défaite Eumeu Sène am juróom-ñett ci ay défaite Modou Lo na nul Eumeu Sène ñaari nul Modou muuduloo nekk na roi des arènes Eumeu Sène nekk na roi des arènes journal bi nee na ñaari mbër yi dajee nañ waaye Modou Lo moo ko daan ñaari yoon yéen a kaay gi di record ak Stades ñu xamal la ñu Naples ba Kalidou Koulibaly Europa tey jii dañu koy tere défaite